ma ma ñëw ci ci parce que dama bëgg nga nga intervenir également ci li ci ma koy laaj euh, Omar dama bëgg nga analyser sànq yaa ngi waxu France 24 mais bëgg naa également nga analyser ñu euh, sorti wu police def la dernière fois ak vidéo yi ñu gis après c'est important aussi ñu analyser seen discours seen sortie bon wax mooy d'abord nen mm-hmm. bëri anormalité dans ce sëñ Mbaye Sy Mansour Tunisie la jóge mhm. doon faju mu bàyyi réewam tollu fenn mu ne mañ bisi c'est profond loolu sëñ Mountakha fan yëpp yéen ngi gis taxawaay bi mu am kilifa xam nga ne état de siège la ñu doon jëm en mars 2021 kilifa yi moo tax demuñu état de siège te boobu militaire yi ñooy gouverner état de siège religieux lañ mujjee mujjee. Mm-hmm. réew mi am apaisement. ku nekk doxaat sa soxla. actuellement c'est la nation qui est menacée. c'est l'état de droit qui est menacé. c'est la démocratie qui est menacée. c'est l'état d'une manière générale qui yow mënul nga gis ne tey kër Matar Matar Ba dinañ ko taal ancien ministre du sport. c'est lu qui fait l'unanimité et de la part de l'opposition et de la part du pouvoir ku wax ne kii liggéeykat la taaluñu ko. benn ci man liggéeykat la franchement. taaluñu ko ku nekk foofu. Mm. Mm. taaluñu ay këram. ba maa ngi koy gërëm sax moom ak jabaram madame Ba ut nañ corbillard ba yóbbu ko ci jàkk ji. Mm-hmm. mënoon nga gis ne heure bii di taxaw ñu ne kër Aïda Mbodj mii ñu ngi dem di ko lakk. Mm. chaise Pastef ñu ngi koy taal. kër du Ka ay xaw ma lan cocktail molotov la ñu tee di sànni si kaw immeuble bi. di taal këram permanence su Déthié Fall. permanence su Déthié mbir ak kër kër Waly Waly Waly Diouf. xaw ma Waly Waly Diouf. ak ñeneen ak ñeneen. oui c'est ça. nga gis ku teg sa oto sa buntu kër. liggéey ba ko ba teg sa buntu kër ñëw taal. ñu taal ko. Sesti. ce que l'université représente dans ce pays des amphithéâtres te ko ci benn niveau boo xamante ni c'est c'est extraordinaire mbaw koo ma diis man de xëy na amatuma fa doon seeti yenn mbir yi xëy ma gis si bopp université. non c'est comme su fekkoon ni musuma fa jaar. parce que des archives de 57 à nos jours. Mm. c'est grave véritablement c'est c'est très grave. Ngom ñaa l'a dit tout suite. mais bon je, je, je pense que kii nañ ko de mhm. euh, kii. digitalisé digitalisé informatisé ko informatisé ko. informatisé nañ ko waaye. BRT bi c'est pour nous terre bi c'est pour nous les bus sont pour nous et c'est là où kilifa yow sax dama lay interpeller vous n'avez jamais accepté soit dans ce pays et vous devez continuer à jouer de ce centenaire contre ce que les gens disent sur les internautes. que vous êtes constant dans votre koo leen gis lu yoon ngeen def ko def leen ko même boo leen si ñaar parce que noonu ngeen di inculquer les valeurs valeurs à ces à ces jeunes qui sont là au lieu de porter un combat politique ils portent autre chose et ça une honte ça a été une honte ce qui se passe quand je vois des jeunes dem saccager des des magasins dem toj ay mbiru kii génn fa lañ gëj a génnee j'ai vu des jeunes xamante ni ba ñu tojee Auchan wala toj ay magasin ba ñu jëlee ñu mën a jël nañ toog seen kër ñooñu ban combat la ñu mën a ban revendication c' est une revendication ça. Hmm. c' est du banditisme. ñun nag suñu génération bu ñu osé wul taxaw freiner ce qui se passe ça veut dire que ñun on a failli à notre mission. avec tout ce que nous avons joué dans ce pays même si on doit être payé disons la vérité à ces jeunes. si vous avez une revendication mais bu leen dugg ci loo xamante ne leer na lii fi réew jëm baaxul. quand sëñ Mountakha Mbacké aujourd'hui bu daan wax ñëpp de topp bu waxee Touba lii kenn du ko defati bu demee ba ne Baye Fall génn leen yàpp la donc nañ dellu si en arrière. Mhm. et c'est là ou je vais interpeller Bamba. vous êtes un analyste politique économique. tu dois pouvoir divulguer parler aujourd'hui des causes et des responsabilités par rapport à ce qui se passe. troisième candidature mi ngi fii. Mhm. mais mbir mi c' est le procès Sonko Adji Sarr yi ngeen di wax ni yëpp ay waxu caaxaan lañ wax ci lañ wax loolu yi nga xam moo moo indi problème yi. wax leen est ce que nan la ñu war a mën a def sur sa procès pour que ñu régler li ñu war a régler définitivement. Hmm. troisième candidature bi d' accord mënul créer lii lan moo ko indi y' a un procès entre deux personnes yu ñu war a def kii utiliser na la. mais la voix kii utilisait la voie du procès l'autre il a utilisé la voie de la rue et c'est normal que l'autre utilise la voie du procès qui utilise la voie de la rue parce que monsieur la amee ndam Youssou Ndour way na ko li nga def ba am li ba mu am li soo ko bàyyee du jigul la c'est un procès de viol demul demul ba yàlla may ko su ndam jamais dans ce cadre c'est compromis di ngeen taxaw ne soo ko demal mu dem parce que xam na ne bu demee du am ndam ndamam si mbedd mi la koy def da koy bàyyi wax leen cause yi nañu wax carrément ce qui se passe c'est maintenant il faudra trouver une solution définitive par rapport à ça ñu trouver ko mais wax leen góom bi lan la góom bi mooy verdict génn na condamné nañ ñi deux ans de prison et c'est la première fois dans l'histoire judiciaire de ce pays que quelqu'un bénéficie de ce privilège là ñu inculpé la quel privilège non privilège mooy dañ la inculpé de viol. Mhm. def la sous mandat sous sous contrôle judiciaire. mais léegi non dafa ndànk dafa ndànk dafa am li ko ko may ba lii mu am ko mooy am nañu taxaw lu fi amee. kilifa yow bi ñu la jàppee. sur quelle base. non pas non ñoom laa lay dama ne la mais au moins réussir na ba kenn yóbbu ko rëbës réussir na ba ñu condamné ko mu toog mooy am na ñoo xamante ne am na ñu ko gars yi manifester am na ñu ànd ak moom am na ñu taxaw nous sommes prêts parce que il nous a parce que si suñu espoir porte sur Sonko d'autres disent c'est là le problème comment il faudra faire peut-on aller aujourd'hui à un compromis pour que kii mën a fekk à des occupations nekk candidat kii mën a def lale économie mën a dox c'est ça le problème mais nit ñi toog di farfaloo ku wax naan ay la mais mais mais mais mais Euh, Néné ils ont soulevé deux choses troisième candidature. ak éliminer ma déglu déglu euh, Omar Omar ak éliminer de potentiel éliminer de potentiel candidat de potentiel candidat mais procès viol boobu procès viol boobu mais c'est ça mais mais loolu la Bamba wax c'est deux choses éliminer un un candidat ak troisième mandat. fa laa jëm fa laa jëm gis nga tey. li dal Khalifa Sall dal Karim. Mm-hmm. ba bokkuñu élection yi mm-hmm. la. Sénégal yëpp jàpp ne moom lañ bëgg a def. Euh, euh, euh, Ousmane Sonko oui. maintenant ñële peut-être réussir na mais bii nit ñi gis nañu du réussir est-ce que tu comprends ci foofu la mais ñi nga xamante ne en grande partie. ñoo tax ñu génn mooy dañu gëm ne Sonko moo war a nekk suñu candidat te gis nañu situation bi du nekk suñu candidat dañuy xeex. d'accord Omar te lool lañu gëm. léegi nag léegi nag léegi nag foofu nag dafa am leneen lu mu laaj. Mm. <laughs> saa yi je pense que ni mën naa rëbb. oui oui dafa am dafa lu mu laaj. Mm. fi Omar daanele comme ça ma ñëw. parce que je pense que foofu la débat bi. Mm-hmm. débat bi waaw allez dina nekk un débat buy jëriñ.